la ilaha illallah góor ah, ya ah. Hey. la la la la la kon sëriñ bii fi nekkoon nag moom loolu la xamoon ba jox koon ko cër booba ndax xam gum xam ne sëñ Tuubaa am na ci loo xam ne jaayante rekk la moo ko ci mayee te jaayante googee nag Cheikh Ibra Fall da caa jiitu ba am ca lam ca kon nak lu ñëwati day top ci ginaaw loola lool la xamone xamni ni képp ku bëgg doon murid sadikhit da ngay tegu sa tànk ci pëstéefam boobu mu tegu mu ko tegoon te loolu seigne touba ko ko sérel doomi seigne touba yi sérel seigne basirou wax nako ñim bokkolon di liggéeyal yalla ci seigne touba yi sérel nañ ko kon loolu lu la lo xamne mata xam la kon nak sëriñ bi loolu kóllëre googee mom lay feddili ba tax mu ne li muy def da ciy cëral mam Cheikh Rafaal bam ko defee itam murid yi fekk si ko taxaw ci taxawaay bu rafet bu màgg boo xam ni ku ne gis na kon ñu ngi ñaan taxawaay boobu ak pëstéef boobu ñu ngi ñaan sama bi darajey Cheikh Mamadou Lamine ak Cheikh Mamadou Bachir ak darajey Cheikh kenn ku ci ne yàlla ci yàlla faj sa aajo zahir ak batin loolu lañuy yoon lañuy ñaan dërëjey sëriñ bi kon xam ni ne waxtaan wi am na ci loo xam ne sëriñ bi ci boppam moo koy waxal boppam ci xolum sedd gum sedd ak lu mu leen bëgg a sànn ci ay kàddu ba ngeen xam sant na bu baax ci di ngeen def liggéey bi nag ginnaaw borom guddi gi moom moom guddeem kon faaw ñu waxtaane mbiram di jël nuyoo ak ziar bu tedd bu jëm ci sunu yaakaar cheikh Mouhamadul Mountakha moom cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo fi sëriñ Touba di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér ba ay naalam lépp mu yeggale ko ba sum yeneen tañ ànd ko ak moom. waaye ñaane ko baax Serigne Cheikh Jëmm Fall mi fi wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina di ñaan suñu borom mu dolli ko fa yàggal te wéral ko bu baax a baax. man dama jàpp ne sax ñu bëri tey ñi nga waxtaanee Cheikh ñu bëri tey maa ngi dem fi ñoom sax di taataan lu bari waaye liñ am ci Cheikh Mouhamadul Bachir néewaa na ñu di ko am fen liñ dégg ci moom néewaa na ñu ko du ko dégg fen ndax moom li mu daan waxtaan ci Cheikh Ibra moom pas-pasam ak ak ak ak bëggam ak xam Cheikh Ibra Fall te nëbbu ci dara foofu la daan waxeek noonu mooy lépp loo xam ne Cheikh Ibra defal na ko sëriñ bi moom loolu rusu koo wax ragalu koo wax lépp loo xam ne Cheikh Ibra doon na ko ci yoon wi rusu koo wax ragalu koo wax ndax dafa ñu daan xamal saa su nekk ne ñun kiñ am sëñ tubaa rek la te fa ko Cheikh Ibra teg jomm na maanaam fa ko Cheikh Ibra teg loolu day foo xamante ni bii mësuñoo gis ko ko fa teg moo waral nu nit lépp luñ xam ci moom lu baax duñ ko bañ a wax wax nanu ko fii ba tey muy waxtaan yoo xam ne sax am na ci yooyu mën a su koo jàllale ci jotaay ndax waxtaani biir néeg la loolu sëñ Aline mën na cee def ay seede yu bëree bëree bëree bëri loolu it tax na ba njabootu Cheikh Ibra buñ ko masaan a teg waxtaan yi wala ñu tel jàlle ko ci internet bi bañ gis ko mbégte mi ñu ciy àndal ak ñaan yi ñu ko daan sànni di ko ñaanal te ma fekk lépp loola kenn xamu nu mu mën naa fee tudd kilifa yu bari yoo xam ne ci yoon wi ba ci sax sëriñ ba Fall alxuraan yàlla di def na bis boo xam ne maa ko ko jox téléphone fii ci kër gi moo wax ak sëñ bas mu ne xamoon naa ko lool ndax Baye Fall yi bi ñuy liggéey barab maam Cheikh bi këram lañ defoon muy wàccuwaay wi loolu sëñ bas Bass nettali na ma ko ak ñeneen ak ñeneen loolu kon dafa yàgg ci bëggam Cheikh Ibrahima Fall ak dundu maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina waaye nag loolu lépp nag day wane rek ci li nga xamante ni bii doon na ko ci sëñ ndax maam Cheikh. am ngeureum lo xam bi ko touba tubaay gërëm booba cheikh Mouhamadul Lamine mo ñew jamono lolo bok na ci ngeureum yi Cheikh rafal am ci seigne touba ndax Cheikh Ibra ku beuri ngeureum la fukki fan ak juroom ñaar ci wéru gerem seigne touba gërëm nako mo lañu fatali ko dem dan ko defé tewawon seigne bass dan ko magal tay ñukay indi touba waye bis bu Cheikh Mouhamadul Lamine ñewé jamono yi seigne touba wo nako mok ñenn ci mag ña fa jiitu woon yeewi am ngeureum ngeureum lolé nak sa suñu masana gis ñun seigne bashirou bara sunu xel ak sunu lépp day dem ci bis boobee. tey lam ñu mujj a wax mooy yéen lépp lu ngeen bëgg dem leen ndax Cheikh Ibra Fall li seen i mbir loolu moo ne ko wax ñun ñaar ñii nañu it xam naa bëgg gi ngeen ma bëgg ndax fu ma ne fekk ngeen ko fa loolu moom Mbàkke Kajoor la ko waxee. loolu lépp nag la tax mooy xam nañ mu doon ci Cheikh Ibra Fall Babi Mouridina xam fi mu tegoon maam Cheikh Ibrahima Fall xam bëgg gi mu bëggoon maam Cheikh Ibrahima Fall boo gisee ñoom maam Cheikh ñang ñi turu yàlla wi. ñu di ko yëkkatil fii ci këram xam nañ digganteem ak turu yàlla sikar ni mu ko bëggee woon ba amoon na kuréel am na kuréelu boppam fii ci kër gi goo xam ne ñun ñaata yoon lañ fi ñëw àllarba fekk ñuy yëkkati sikarullah kon da dund ak Baay Faal gu wér goo xamante ne bii ku ko xam xam nga ne loolu moo ne fi moom loola nag bëgg sëñ tubaa te amu ci sago yaakaar sëñ tubaa gëm sëñ tubaa maamam moo sabab loolu ndax Cheikh Ibra bëgg gi da ngay ñàkk am sago ci sëñ tubaab ba loola day mel ne mbuus gu fàcc ñëw fi Cheikh Ibra maam seex koo dégg ñu ne daa bëgg Cheikh Ibra moom ba ko laaj nu def ak sëñ moom xamal na jéggi foofu moom bu jàll ndax bëgg sëñ Touba ba xër ci amoo ci moom sago mooy tax nga bëgg lépp lu dend ak sëriñ bi te mooy bëgg Cheikh Ibra Fall baadu muridina Cheikh Ibra nag di koo xam ne saa su nekk li ñu ci sëñ bi daan wax daan ñu ko tegtal mooy pas-pas bi newoon fi Cheikh Ibra Fall ak pëstéef bi newoon ci Cheikh Ibra ak dogu gi newoon ci Cheikh Ibra Fall sëriñ bi danaan waxtaan ñun ci Cheikh Ibra pëstéefam xamal ñu pëstéefu sëñ Mourou mu Fall ba yegg si ci pëstéefu sëñ Cheikh Fall Góor xoolal loolu ca Cheikh Ibra lay tàmbalee ñëw ci doom muy Cheikh Mourou Moussa Fall ñëw ci sët muy sëriñ Cheikh Fall dégg ngeen léegi ca Touba ba mu fa fekkee sëñ Cheikh Fall ak lam jëflante ak moom waaye dégg ngeen nit digganteem ak sëñ Mourou Moussa Fall ba mu ko fekkee njaareem ak lam jëflante ak moom waaye tamit tolluwaay fi mu tegoon maam Cheikh Ibrahima Fall néewaa na ñun ku ne la ñuy waxtaanal nag kii xam na ci dara gars yi ñu ngi koy topp ci YouTube bi ku ne la ñuy dem ku ne la waxtaanal waaye dama ne sëñ Bassirou Bara fi mu daan yeggeeg noonu gisaguñ ko fa mën a ko fa yeggeeg noonu déedéet barki Cheikh Ibra Fall fi mu daan yegg ak noonu te waxtaan ci Cheikh Ibra Fall dama ne ku gis nañ ko waaye gisaguñ ko fa àgg ak waaw ni mu daan dunde maam Cheikh Ibrahima Fall itam ba buñ ko masaan fekk fii nga xam lu mu xat xat xat buñ ko nee Baye Fall yi ñëw nañ rek day bay lépp lu mu nekkoon jublu ci noonu ndax bëgg gi Cheikh Ibrahima Fall ñun maam Cheikh maam Cheikh la doon dàkk ci noonu waaye yàlla xam na ne loolu teew nañ ci jëmmi ku ne waaye ba tey jii mënu tumbaranke nañ loolu mënatuñ ko gis loola nag dafa yàgg la ko tax nag mooy dafa dafa xam li maam Cheikh Ibrahima Fall yoral sëriñ bi ndax Cheikh Ibra Fall rek bu doon xam sëriñ bi la wax na Cheikh Ibra xam sëriñ bi waaw ndax maam Cheikh Ibrahima Fall moo njëkki jébbalu joxe boppam sëriñ Touba Cheikhul Khadim jébbalu xamuñu ko woon Cheikh Ibra ko fi indi joxe sa alal xamuñu ko woon Cheikh Ibra ko fi indi joxe sa sa njaboot xamuñu ko woon Cheikh Ibra ko fi indi kenn mënta wax lu maam Cheikh Ibrahima Fall deseel sëñ Touba dese dese nga xam ne danaan ko lii laa la jox lii laa téye kenn du ko fi wax Cheikh Ibrahima lépp la joxe yaa njëkk a jébbale sa xol ndax fekkoon nga gaayee xor-xoral ña lay taqal ak ña lay setal yaa xal ngir mii ñuy doxe loolu yàgg na Cheikh Ibrahima bi muy ñëw ci sëriñ bi la sëñ Moustapha sa yu nekk li may dégg ci kanamu sëñ Cheikh Fall Mbawor ci màggu sëñ Ali Fall Mbawor mooy lam fekkoon ñu ko doon jëf leen jëflanteeg sëriñ bi maam Cheikh da ko soppi daa soppi lépp benn rek mooy daaray jàng la fa fekk waaye bi Cheikh Ibrahima Fall ñëwee la sëñ bi samp daaray tarbiya maa la wax loolu Mm-hmm. yan deew liggéey fanaane root gannaaw bi Cheikh Ibra Fall ñëwee la xew gaa yee ne ba naan xuréet balay ganaar naan kur kuréet moo fa xewal daawul doxi sëñ Cheikh Mbay yaaram ne ma sama nijaay Cheikh Moudou Fatma Fall moo ma nettali keroog bi Serigne Saliou Fall wàccee liggéey ñu jëlee ko Touba di ko yóbbu am na kenn ca mag ñene daaru xafoor wayjuru jëm mu yee toog Baye Naar Fall moo ma wax ci làmmañam na ma ña doon yanu sëñ Saliou faal Touba ba daaru xafoor ca laa bokk doom mu ngi dund yàlla na ko fi yàlla yàggal keroog biñ egsee Touba sëñ yaaram mbay lañ sant mu jullee sëriñ Saliou Fall waaye sëñ daam nag moo doon taxawu lépp waaye sëñ yaaram la sant mu jullee ko loola Baye Cheikh Mbay yaaram moo ma wax na ma keroog sëñ daam Abdourahmane Lo ca jotaay ba am na lu ma ko laaj mu ne ma ngir mu yaatu da ngay may fekk ndaam nee na ma keroog bu jotaay ba tasee ca denc ba te fekk sëñ Saliou Fall ma dénkoon boppam moo tax ma taxaw ko ba mu dem moo mën a seex mu du ma ne Fall mu ne ma lu ma jur a tax dama laa wóolu danaa la wax tawat sa nga xam ne ca laay waxtu ba may demee boo ñëwee fekk ma tëdd wetu ñàngam jublu sàngam nanga nga xam ne du ca dem waaye waxtu woo ñëwee fekk ma jublu sàngamu sa na nga xam ne taw soo see ca lay dem na fa taxawu ba ma dog nga ànd ca ña ma yóbbu Touba looy def nga door ko def. Cheikh Modou nee na ma dégg bis sëñ Saliou yëngoom nee na ma dikk fekk ko mu tëdd ci néeg bi ma nuyoo jàll nee na bi ma ko tegee loxo mën a xefeet na ma kooku Cheikh mën a mën a waaw góor doom xanaa la ma la waxoon mën a mënu ma jotagul nee ma dem ba ab bis ma dellu siwaat nee na bi ma ñëwee fekk ñu ne ma sa sa maam day daa mel ne sa baay da daa mel ne daa xaw a yëngu nee na ma dugg ci biir fekk ko mu tëdd nam ma waxoon nee na ma róof ko loxo mu xefeet na ma ah waaw kooku seex ma naa mun waa góor doom defal na ma la waxoon nee na ma di ko taxaw di ko taxaw ba yàlla dogal dem nga am nee ma bokk ci ñu ko doon indi Touba sëñ Cheikh Mbaye na man mii di wax ak yow sama nijaay Cheikh sama ndey Ousseynou Fall war na ma ca 15 boo xam ca nafaam la ko daan def ca xaalis boobu la bokk nee na ba loola amee bañ denc sëñ Saliou sëñ daam nag doon comme kenn lañ woon ñoom ñaar ndax daaru xafoor bañ koy sañ sanc sëñ Massamba Mbacke ak sëñ Daam Abdu Rahmaan lañ ko tuddee loolu sëñ Tubaa ko santaane ba loola amee nag sëñ daam daal di dem Cheikh Modou nee ma topp ca nee na bi ma jub si sëñ daam ci njowaan la toog nee daf maa na ma daan def bu ma Cheikh Ibrahima Sane yónni fu moom wax na ma sax ay wax Cheikh mën a mun a ma cey Cheikh sa baay ba ndax nee na xel maa ci Cheikh Ibra ndax moo ma daan yónni ci moom moo na ma Cheikh Rafal a gore ni mu jaaxala waa àdduna ni mu jaaxala waa àllaaxira ko raw billaay Cheikh Modou Fane ma nee sëñ daam ma wax lii Cheikh Ibra Fall la sa baay mu kéemaane ni mu jaaxaloon waa àddina ni mu jaaxale tey jii waa àllaaxira ko raw nee na teg na ca ay wax nee na da ma ne ko mu ne ma ndax sa baay wax na la Cheikh Ibra Fall nam tase woon sunu daara je koro ba mu jébbaloo ca Mbàkke Kajoor Cheikh Mudu nee ma ne ko déedéet mu ne ma toogal ma laayee la ko biir Cheikh Ibra ba mu jébbaloo daa féetewoo liggéey sëñ Daam Abdourahmane la woon nee na ku gis Cheikh Ibra Fall wenn waxtu nga ko gis mu waxtu fajar ndax lu mu yendoo liggéey ci bëccëg ba day bàyyi bu gudd jot mu roñ ko ne su ko roñee ba mu mat mu jël gog bi ak baag bi root ndaay bu noppee mu tëral goj bi di bale ëtt bi waxtu fajar di fenk ne fa nga koy gisee boo ko fa gisaatee suba la ci waxtu woowu kon mooy yéen doo liggéey fanaane root gaa yee nelaw ba naan kuréet balay ganaar naan kur kuréet moo fa xewal daawul doxi waaw moo fa xewal nuyoo di raam moo nu toree wuyoo na naam fekkoon nu ñu jàng fa naam fa daam moom muy munut di pexe sëñ daam nee na ndax maam seex lu mu yendoo liggéey guddi jot la koy indi nee na su ko roñee jël ba goj bi ak baag bi root nday bu noppee nag mu tëlal goj bi di bale ëtti bi fajar daal nga gis fa Cheikh Ibra Fall bu ko fa gisaatee suba bis nag sëñ daam nee na ku baax ki di ñu fëgg ci jug leen taal ndax jàng jot na nee na fekk maam Cheikh yaayo yanoon na sayu mat ci fajar gi bi mu ñëwee daane say bi waaye ci làmm ñu Cheikh Ibra laa dégg mu naan mbàkke bal doomu jàmbur yi li nga leen di wax te wax leen la sa wax mu jëriñ te nga bàyyi li nga leen di wax booba seen maam a ngi yett buntu nag te mooy buntu jaayante waaw Cheikh Ibra xam nga lu mu gëm ku ñaan ñàkk bu jëndee am waaw nee na lépp loo xam ne doolee koy maye ak kàttan ak jom duma ko ñaan kenn moo tax maam Cheikh daal liggéey nag moo tax may wax Baye Fall bu dajee ci jotaay ne leen na ngeen bàyyi xel ne Cheikh Ibra liggéey la ñu joxoñ waaw maam Cheikh liggéey la ñu joxoñ yéen doo liggéey fanaane root kooku mos ta dallu di kon te maam Cheikh moom euh, euh, sëñ tubaa sax bayu mayu ko woon bàyyiwu woon muy dalal daray jëmmam sëñ Moustapha Saliou moo ma nettali maag moo ma toog ci kër sëñ Cheikh Fall muy wax may dégg nga xam ne léegi Cheikh Ibra Fall mayu sëñ bi mayu ko woon dara nee na am na ci taal boo xam ne sax ndax booba nee sëñ Moustapha nee na taalukaay moo yombul ab taal daana am ay weer du fay ndax taalukaay yombul ñi daan aw ay ayeloo di xam taalu jàngu bi taal bi sëñ bi daan niitoo nee na dañ daan yegg sax ci sëñ bi defal leen benn takk foo xam ne bu noppee fa la ñuy wéeru maam Cheikh nag sëñ bi mayu ko loolu moom su xambee ayee xambu bu génnee sedd ba da koy xaw a gaañ bis nag xambu gam tey ne yàgg sax tax na sax yàgg gam ca yàgg donc xam nga ñu sëñ bi may fu ñuy wéeru sax bu noppee ci biir néeg bi di jaaru bokkut ak ki nga xam ne da caa xaw a yàgg sax sëñ bi bu max ko na ko Ibra Fall mbaa da ngay nen di naan mayu ko woon dara saa su nekk nu muy def ba am yàlla ak nu muy def ba ba jariñu loo koy won moo tax maam seex foofu la la la la la joxañ ak njabootam sëñ Bas yàgg nañoo ñëw fi waaw loolu mooy la xewoon Mbàkke Kajoor seex seex Ibra foofu la teg tànkam moo tax ku ngeen romb mën a bàyyi faal laa di wax di dem rek te deful jëf muy ngànnaayam day sóob du seex Ibra waaw sëñ Bas wax na yàgg nañoo wax loolu moom day teg bëtam nee na ci jëf ji mu ngi gis wax na ma ba tàyyi fii ndog yi mi ngi koy gis yóbbu xarit tabaski yi ndax nee na dara sañ dara du ma rëcc fii la koy wax lépp lay gis lu ngeen def maa ngi koy gis yóbbu xarit tabaski yi toog nañ fii ñaata yoon lañ toog mu waxtaan ci ñaata yoon lañ toog fii mu dañu wax leeral ci ndog yi. man bi ma ko nattee man dama ne man Cheikh Ibra dong la def nawle ci bëgg sëñ Tuubaa man man loolu laa loolu laa loolu laa jàpp man ndax man natt naa ko ci fànn yëpp gisuma kum ci yamal ndax bokkal sëñ Tuubaa foofu la leen teg ñi mu sëriñ bi foofu la leen teg kon loolu moo doon pëstéefam loolu moo doon yitteem loolu moo doon himmaam moo tax nag yaakaar naa ne lu ne mën na ko am ci sëñ Tuubaa lu yaakaar rek mën na ko am ci sëñ Tuubaa ndax koo xam ne jéego yi ngay jéego sax addi yi sëñ Tuubaa nga koy def fu ma sa a toogit bu bu bu wóolbati ko sant na sëñ Tuubaa nga di ko dégg di jëfe Xaadimu Rasuul da koy wax lu bari fu mu xinnee koo rek nga dégg mu jërëjëf Xaadimu Rasuul am na bis bi mu ne ma Touba mu ne ma Touba de man de lu lu waaye bëgg ci man ci amoo ko rek da ngaa jaarul ci man de sëñ Touba lu ku ma bëgg nax jaar ko ci moom ku jaar ci sëñ Touba bëgg a naxee man nga ma ko naxee kon moo lépp sëñ moo tax nag Cheikh Ibra moom it mu jox ko cëram boobu teg ko foofu kon xam naa ne waxtu wi day gudd waaye pësteefam mën nañ cee seer mën naa ci seer lu bari ndax lu am na jamono yu bari dama daan ànd ak moom di toog ak moom xam naa pastéefam ci sëñ Touba lim nangoo woon a tegoo ngir sëñ Touba mu gis ko ko attan bariwut gis nga addiya ji addiya ji Cheikh Sidi Moussa Ba bis bu ne day ñu ànd ci banque bi day rëti day day day yullee yullee yullee yullee ba danga naan bu subaa xanaa dara du fa des te bu xëyati ci banque ba lay jubale ñoo ànd ak moom mu julli boole ko mbasin yeeg yëre yeeg day day commande rek saa buy nuyu sëñ bi li mu koy taxaar bi mu koy nuyoo da nga yéem da naan xanaa bu subaa waaye noonu noonu la ko ba ngan gi jeex boole boole gi buñ nee ngan gaa ngi ñëw mooy jën nag lépp moo koy def ci taalibeem alaaji Fall bi nga xam ne señ bee ko jiitaloon képp sëñ bi da ko daa wax yaay suñ jëwriñ sëñ bi feetal loolu boobu man pëstéefam xoolal loolu alaaji Fall bi nga xam ne sëñ bee ko jiitaloon sëñ bi da ko daa wax yaay suñ jëwriñ ndax sëñ bi di jiital hmm? te moo sosoon Cheikh Sidi Muxtaar waaye nangu nangu taalibe ak fonkuk taalibe ndax wax na ko léegi daa naan sëñ benn bis mos ma ne sëñ sëñ dafa jur gërëm daa am ñum jur ak ñum gërëm daal ni ñiñ gërëm ci lañ bokk daa jur gërëm ne ñiñ gërëm ci lañ bokk kon looloo doon pëstéefam looloo doon yitteem waaw kon ñu ngi ñu ñu gàttal ko foofu rek ndax lu gudd la loo xam ni mën nañ koo seere ci boppam ne moom daal murid saadix la moom man man loolu mën naa ko waat man ci waatukaay yëpp ne moom murid saadix la moom bu béré wér moom loolu moom lu ma xam la man loolu nag xam naa ne sax du waxi kii waaye kon xam naa ni foofu laa koy kii di ñu jox sëñ bi ñu ngi sant mbokki taalibe yi fi daje yépp suñu mbokki Baay Faal yi xam naa buñ ci tuddee sëñ Cheikh Ñang sëñ Mamour Ndaw ak sëñ Cheikh Lo mu doy di ak sëñ Alioune Badara Ndim di ñaan ñu jot jokkale suñuy ziar ak suñuy cant mbokki taalibe mbokki Baay Faal yi fi daje yëpp di sant bu baax a baax ci eh, jataay bi ak ci pësteef gi eh, di nuyu itam di ziar suñu kilifa Baay gàdduloo ak mbokki taalibe yi fi teew yëpp waa fédération bi ak mbokk yëpp rek eh, mu mel ni xam naa wax ji du gudd ndax mel na li ëppoon solo Euh, sëñ Mamour wax na ko sëriñ Aliou moom it jaaraat fu mel noonu kon xam naa dañuy tënk rek ndax daanaka euh, liñ fi waroon a wax lépp wax nañ ko euh, xam naa fi ñuy jëmale suñu kàddu mooy tontu ñàkkul li laaj bi sëñ Cheikh Lo Baye Fall laaj léegi ndax dafa mel ni dafa laaj sëñ Mamour ne ko lan mooy Baye Fall. am naa ñun nag euh, lott nañu ci tontu ci lu mel noonu ndax suñu àlluwa li mu ñàkk gudd waaye am nañu taw féex laaj lu mel noonu mag moo xam ni sëriñ Touba moo ko yar muy sëñ Abibu Mbàkke mi ñépp xam nekkoon imaamu jumaay tuuba jàngal ñu bari ci waa kër sëriñ Touba ba ci sëñ Chouaïbou mi ak ñu bari ci mag ñi nga xam ni ku ñu ràññee la ci yoon wi ci ragal yàlla ak ci am xam-xam euh, man am naa tawféexu jamono yi ma nekkee ci gëstu bu xaw a metti bu tar ma demoon ci moom di ko laaj ay laaj yu bari waaye laaj boobu bokkoon na ci li ma ko laaj te moom ci keppaaru Sëñ Tuubaa la yaru euh, bokk na ci li ma ko laaj ne ko sëriñ bi lan mooy Baay Faal waaye li ma tontu dafa tontu boo xam ni dafa xóot ñàkkul te laaj dégg ndax bi ma ko ne lan mooy Baye Fall lenn rek la ma tontu daf ne ma Baye Fall de ku ko doon di nga ko xam Baye Fall ku ko doon di ko xam tegu ci beneen baat xam naa loolu nag ñàkkul. ñi nga xam ne ñoom ëpp àlloo ñoom dinañ ko mën a leeral eh, ñun nag suñu wàllu bopp am nañ ci ay déggin eh, bokk na ci déggin yooyu sëriñ Touba li nga xam ni moom la woote te mu mel ni mooy mission ci ni mu ko daan waxee mooy ibaada wal xitma ndax Abdullahi wa xaadima rasulihi moo doon aw turam muy jaamukatu yàlla abdullah kuy jaamu yàlla muy ibaada ak xaadimu rasul di liggéeykatu yonent bi alayhi salaatu salaam koo xam da nga def xidma xidma xaadimu rasul di tur wi nga xam ni bokk na ci eh, secret Serigne Touba ndax mel na ni tur yu bari yàgg nañ koo dégg ci taarix waaye xaadimu rasul ci ni ko sëriñ bi indee ak ni mu ko dundee melni ma ni fu gis kon xidma dafa melni da fay mbóot mu xoto xot mo xamni serign bi dafa melni sax boko ko limu taxawal lepp ci lako ko taxawal moy xidma gogo eh, niko ko sëriñ Fàllu di tekke baatu xidma eh, mu jaamu yalla ci jaami yalla yi kon mu melni amna ñaari xeeti jaamu yalla ben jaamu yalla bi da ngay saborom sa borom di julli di wor di jang alcorane waaye boo ko xoolee loolu yëpp ci sa bopp lay dellu moom laa tuddee ci sama téere yi l'adoration vertical mooy booy jaamu yàlla danga koy wéetal waaye ci sa bopp lay dellu mu mel ni Serigne Touba junj nañu ne am na beneen xeeti jaamu yàlla mooy xidma mooy loo xam ni da koy jëfal mbindeef wala nga jëfal ko diine ji te jublu ci am ngërëmal yàlla kon loolu day jariñ doomi aadama yi nga soog am ngërëmal yàlla kon muy beneen xeetu jaamu yàlla mu laa tuddee l'adoration horizontale kon xidma googu dafa mel ni mbootu sëriñ bi ci la nekk ci suñuy gëstu waaye mu mel ni euh, li may wax nag lu tax mu xoromu mooy man Cheikh Ibra li ma ci xam euh, fi ma ko jaaree ñàkkul dina wuuteeg ñu bari fi ñu ko jaaree muy mbootum sëriñ Touba moom dafa mel ni Cheikh Ibra moo ci teg bëtam lu xaw xóot la euh, dund ko dundal ko ba murid yi mën a jaar ci yoonu xidma googu lu tax ñu naan ko baabul muridin noonu nga koy déggee yoonu xidma mooy yoonu sëriñ Touba Cheikh Ibra nag moo ko won taalibe yi moo leen ko jàngal xidma mooy kon jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi nga koy defal sëb sëriñ nga koy defal diine ji waaye da koy jaarale ci mbindeef mu soog a doon jaamu yàlla lool sax dafa mel ni moom la ñi ñuy woote ñi ñuy wooye salaf nga xam ni dañàkkul dañuy gëm ni kat lii shirk la loolu lañ déggagul maanaam shirk ak xidma lañ mënta ràññee waaye loolu xam naa waxtu yi du maye ma leeral ko ndax jàpp nañ ni am na loo xam boo ko defal doomu aadama da nga koy jaamu bu ko waxtu bi maye woon dinaa wane ci lu leer ay xadis ak ay yuy wane ni sàkku ngërëmal yàlla ci mbindeef mu ngi ci alxuraan mi ngi ci sunna ci ci lu gàtt rek sa wayjur mi ngay liggéeyal di ko xidmaal defe naa ni benn borom xam-xam du ne soxna su fonk boroom këram di ko xidmaal ndax liggéeyu ndey lañuy wax mooy liggéey mooy xidma kenn mësoo dégg ñu naan la day shirk ak yu ni demee waaye waxtu yi mayewu ko xidma googu dafa am ay mandarga yu mu war a àndal ngir mu mën a wér te loolu lu yéeme la dama ko seetlu jàngat ko ba noppi soog koo gis ci Cheikh Ibra gis naa ci ñett yoo xam ni xidma muy liggéeyal sëñ Tuubaa ñun murid noonu lañ ko tuddee ñun liggéeyal sëñ Tuubaa mooy xidma mooy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi gis naa ci ñetti mandarga yoo xam ne bu ci amul rek du wér bi ci jiitu mooy ki ngay xidmaal ki ngay liggéeyal da nga koy bëgg xubb bëgg gu wér wala gisé bëgg sëñ tuba am solo mooy dafa nekk ci mandarga xidma bala nga liggéeyal sëñ tuba da nga koy bëgg te ku ne gis na bëgg gi Cheikh Ibra bëggoon Serigne tuba moom kenn mënu ko cee dab sëñ Bass Baara lu tax mu bëggoon Cheikh Ibra mooy dafa gis ni moom bëggam gi bëgg tuba Cheikh Ibra bëggam day dugg ci bëgg Cheikh Ibra kon bëgg moo jiitu te lool boo ko xoolee ci saaba yi ni ñu daan jëflanteeg rasulaay da nga ko ciy gis te loolu yaakaar naa ni li koy mandargaal li koy firndeel leer na ci xam-xam ndax yonti saa saam suñu borom dane moom moo moom moo jiitu yi sax yéen ci seen seen jëmmi bopp sa yonti moo war a jiitu yéen xam nga ku koo xam moo la jiitu ci sa bopp ko bëgg gi kenn xamul foo koy takk loolu waral gàmm waral xasida yi waral yu baree bari ci gàttal kon bëgg mooy bi ci jiitu beneen màndarga bi ma war a àndal mooy ay teggin ay ëdëb mooy ak taalibe ki ngay xit da danga koy jox cër bu wér bëgg ko bëgg bëgg ko ba noppi wormaal ko te ku ne gis ne Cheikh Ibra wormaal gi mu wormaal Sëñ Tuubaa ba sax yar ci murid ñuy wormaal seeni kilifa boo demee ci Minanul Baax Xadim da ngay fekk Sëriñ Basiiru di ko màndargaal nee Sëñ Tuubaa ci boppam moo ko ko nettali laa fe naa loolu riwaay bu gàtt la ndax sëñ Bassirou dane sëñ Touba da ko nettali ne dafa am bis euh, mu am tukki bu mu doon def ànd ak Cheikh Ibra Fall waaye nee na li ko yéem mooy bu demee ci barab war a yeesal njàppam nee na bu jëlee ndox mi di raxas ay cëram Cheikh Ibra day njëkkante ndox mi di ko jëfandikoo xoolal war ma jooju te loolu boo delloo ci xaddis yu wér da gis ni saaba yi dañ ko defal rasulullah alayhi salaam sëriñ bi teg ci ne moom li koy yéem mooy lii kat mi ngi woon ci ci xam-xam waaye gox bi jàppoon na ni kenn xamu ko kon loolu day wane Cheikh Ibra kon fi mu fi xam-xamam àggoon loolu mi ngi ci Buxaari ak Muslim boo fa demee ngay gis ni ñu ne euh, saaba sàngam bis rasulullah da doon sang ñuy njëkkante maanaam li génn ci ci ci làmmiñam ci ci ci kiyam sax ak yu baree baree baree bare kon wor bëgg ak wor ma dafa bokk ci liy wéral liggéeyal sëñ Tuubaa ak liggéeyal sëb sëriñ ñetteel bi mooy ki ngay xidmaal da ngay tënku ci ay ndigalam muy ndigal saaba yi ku ne xam na ni li leen may lu ñu am mooy tënk ci ndigal yoon bi alayhi salaatu salaam man yutixu rasul fatataaxlaa la yàlla wax képp ku topp yonte salaam ci ay ndigalam topp nga yàlla sëriñ bi ngay liggéeyal moom da ngay tënku ci ay ndigalam bàyyi ay tereem ku nekk nag gis na Cheikh Ibra moom yaakaar naa bu ñuy jàngalee ndigal yaakaar naa mooy buntu ndigal moo ko fi jàngale loolu doy na ci tegtal euh, mel na ñu ngeen ko sànq sax ba tey ci téere boobu mel na lu baax Xadim sëñ Ndaam Abdourahman seere yi mu def ci Cheikh Ibra te sëñ Ndaam ku ne xam na ni bu dee xam-xam ak fonk alxuraan ak jaamu yàlla ndax euh, xisa bi sax da koy leeral ndax sëñ Basiiru dane Euh, fekk muy leeral mag ñi sëñ Touba yaroon ni ñu yéemee mu ci joxe ay misaal ba àgg ci sëñ daam Abdourahman ba ne moom de li ma yéem ci moom mooy waxtu bi may bindee téere bi nga xam ni boobu sëñ daam ngi dund toll na ci nangami at at yu baree bari juróom-ñaar wala juróom-ñett fukk waaye li ma yéem ci moom mooy ba tey ñaari rakka yi mu baaxoo di ko naafila alxuraan guddi gu nekk ba tey mu ngi koy def fi mu nekk nii nga xam ne moom guddi gu nekk sëñ daam day naafila ñaari rakka yoo xam ne day koy day tari alxuraan ba mu jeex ci da koy da koy xaaj ci ñaari rakka te ay atam àgg fu sori te mu ne lu ci yéeme mooy da koy def boole kook li mu war a def bu suba si jotee yëpp da koy def muy toppatoo kër gi jàngal dong yi ak yu baree bari nee na benn bis sëñ ba si roy nettali de nee na benn bis ma ciy wax ak sëñ ndaam di ko di ko yéem ci li li ko kàttan gii mu am ak pësteef gi nee na sëñ ndaam tontu ma tontu bu doy waar lii de li muy yéeme yéeme du dara ci sa kéemaanu baay muy sëñ Tuubaa sëñ ndaam ne ko lii de li nga koy yéem yéem du dara boo ko mengaleek li sa baay Cheikh Ibra doon liggéey ci kër sëñ Tuubaa loolu ñu am lu ñu fa war a jàngee mooy mag ñi sëñ Tuubaa defaroon maanaam wormaal gi ñuy wormaalante seen biir ak gëm gi ñuy gëmante seen biir nga xam ni ñun loolu muritu tey war nañ cee jàng ndax dafa mel ni ñun muritu léegi am nañu jafe-jafe ci yëg suñu bopp ndax ku ci nekk ci ñun jàpp nga ni li Cheikh Moussa Kanaan koo gis mu naan manam lëmm te boo demee ci lëmm doo fekk lem murit da koy gis léegi murit boo xam ne jàng na ñaari xasida rek gént na ñaari gént rek di fëgg dënam jàpp ni moom dara la bu gisee mbokk taalibeem jàpp ni kii du dara kii amul pëstéef kon loolu dafa mel ni mag ñi loolu dalu leen ndax xam nga ne kuy naafile ñaari rakka alxuraan guddi gu nekk ñu koy yéem nga naan li may def de du dara boo ko boo ko méngaleeg sama mbokk taalibe li mu doon def xam nga ni ñooñu fi ñu àgg sori na. bañ a guddal ma gàttal euh, sëriñ Touba mës naa wax benn wax boo xam ni sëñ ji li muy fekk na biñ koy nettali suñu mbokk mu baax sëñ Saliou si di boroom xam-xam. moo ko dégg ci sëñ Moustapha Sy mi nga xam ni ci keppaaru sëñ Touba la nekkoon kon mu mel ni nettali bu gàtt la fekk sëriñ bi di wax ci xidma ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla nee na sëñ bi moom moo ko déggal boppam sëñ bi ne ko ne leen ibaadatu rabbal alamin fil alamin de du ma ne moo gën ibaadatu rabbal alamin waaye moo ko ëpp doole maanaam xidma muy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi di jariñ doomi aadama yi ak mbindeef yi di liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dane loolu de du ma ne moo gën jaamu yàlla muy julleek woor ak yi ci des nee na du ma ne moo ko gën de waaye nee na moo ko ëpp doole waaw kon ñun buñ ko doon tekk ci langage murit mooy liggéeyal sëñ Tuubaa du ma ne de moo gën jaamu yàlla waaye mu ëpp doole jaamu yàlla mu mel ni nag Cheikh Ibra dafa mel ni loolu la déggoon kon lu xaw a xóot la euh, ma jeexal ci euh, xidma moom kon mooy base yoonu murit masaalikul naan dama ko bind sax nga wax ko bu yii yëpp amee ci yoon wi li fi Cheikh Ibra indi moo tax mu am waaw loolu mooy li wér te lool ci gëstu la nag du ay waxi kese Euh, bu jumaay tubaa taxawee philosophie ak doctrine Cheikh Ibra moo tax ba jumaa ji taxawoo li murid yi rawee ñeneen yi mooy lu fi Cheikh Ibra indi buñ ko ci génne woon murid yam ak ñeneen ñi waaw mooy li am sëñ Bas loolu la xamoon loolu la doon dund doomi sëñ Tuubaa itam ci loolu lañ nekkoon waaye waaye leneen leneen lañ ciy nettali loo xam ne tamit xam naa sax du bëgg ñu nettali ko wala sax xamu ko lo xam dama ko dund ak mom ndax mi ngi netti mi ngi wax sama dengan mom ndax mom bi xamanté tegli, léegi ëpp na ñaar fukki at eh, wax dëgg yalla muy ku jàmbaare ci ñuko xamul Baye Fall bu engagé bo xamni ni Serigne Touba la foko fekk mi ngi wër dëkk yi di dajale di majjal di yobuker kër Serigne Touba té sax kërëm dara neeku fa man dem na fa barki dem té day dajale ay millions di ko diko di ko yóbbu di ko Serigne Touba kon mom, xam na luma xam ci mom Euh, am na benn bis yàgg na li muy wax ni yàgg na xam naa sax boo tey la koy soog a yëg yéen a koy déggandoo xisa bi may nettali lu tax man ma am fiitu di wax ci Cheikh Ibra ak ak gëm ni Baye Fall bu wér bu dëggal yamul ak keneen loolu nag bokkul bokkul ak nag li sëñ moor Ndaw doon wax moo doon wax léegi mooy kuy wootewu woo Ibra fekk yow li li sëñ li sëñ Abibu waxoon dalu la mooy dafa ne Baye Fall de ku ko doon di nga ko xam waaye Baye ku ko doonul di nga xam boo wéetee di nga xam ne yow doo Baye Fall wax rek Euh, kon sëñ Cheikh Lo yàlla na ko yàlla dëgëral dafa mës a ñëw sama kër benn bis ziar ma ndax dafay day ñëw lu bari ni mu ko waxee rek ñu yëkkati ñu ne di barkeelu ci ci àddiya yeeg ci sas yi. fekk jamono yooyu dafa am lu ma daloon ndax man damaa yàgg ni ma ko sëñ bu waxee rek bi mu may bi ma koy laaj laaj yu bëree bëri sëñ bu jàpp sama loxo ba jàng xanaa da ngaa jàng tubaab ma ne ko waaw mu ne ma bëri solo bari solo <laughs> naa bëri solo googu moo ma topp fekk jamono benn xasida sëñ Touba sonn ci lool nag yàgg na li may wax nii bi ma ko tekkee fekk dafa am xasida gi benn aaya alxuraan bu ko sëñ Touba tënkee jamono yooyu informatique amul bariwul woon aaya bi bi ma ko bëggee tekki ma bëgg xam fan la nekk ci alxuraan ndax man noonu la ñuy liggéey scientifique booy liggéey boo joxee aaya da ngaa war a wax ne ah saar sàngam ba maanaam euh, aaya sàngam maanaam suraat sàngam verset sàngam par yàlla def nag mënatumaa xam fu aay bi nekk fekk traduire naa téere bi ba nopp xasida sëñ Tuubaa waaye sëñ Tuubaa ko tënkee benn aaya alxuraan ma sonn ci lu ne ma daj ko ci di ko wër ku ma xam ma laaj la waaye mënuma ci mënuma koo gis ma sonn ci lool sax bi ma demee ba naagu fekk dañoo waroon imprimer téere bi sëñ Alioune Cissé mi sax moo ma ko imprimer jamono yooyu ma dem ba naagu ci ne ah léegi daal comme que xamatuma fu aaya bi nekk dinaa damay def rek def aaya bi traduire ko def Coran def alxuraan daal bàyyi noonu ndax ah comme xaw ma fu ma nekk bu doon jamono yi da ngay dugg ci logiciel yi rek tapé bi ma bi ma tollee foofu sëñ Cheikh mii ñëw kër ñëw ci kër gi toog sama wet ndax moom it am na lu ko yàlla defal am na ñoo xam du ko wax waaye am na lu ma doon lu ma yëg ci moom xam ni kii ku dëggal la bi mu dugg see rek am benn lu ma xil lu ma il lu mel lu ma ilxaam ma ne man daal maa ngi dogg ci barke sëñ Cheikh mii. xam fu aay bi nekk waaye maa ngi giñ ci sëñ Tuubaa bi ma tijjee alxuraan ji aay bi laa tombeel wasalaamaaleykum wa rahmatullah ngir ngeen mën a topp suñu programme yu am solo yooy daw leen abonné ci chaîne bi te bañ a fàtte activer cloche bi pour benn programme bañ leen a mën a ram Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh